jëw gi mu def ko gën a bon yaa ko fu bàkkaar ki nga jëw yaa bàkkaar ndax la mu def rawat nag bu fekkee ne dafa def bàkkaar boo xam ne ci moom dong la digganteem ak yàlla la loru ci benn jullit sa yoon nekku ca ndax yow doo muxtasib doo qaadi bay àtte mbiri jàmbur diggante ak boroomam la boo ko mënee laa biire ci waxin woo xam ne du ca mer du ca am naqar da nga ca am tuyaaba waaye boo ko waxee sax waxin woo xam day mer ba di ca xulóog yow na la lislaam sante nga waxe ko waxee woo ko ni ah adduna bi dund ci dundinu jullit mooy tax a mucc ëllëg mooy tax sukuraat sedd mooy tax trayu bàmmeel neex ba borom du yàkkamti sax yomal xiyaam ñëw mooy tax bis penc baa bu ñu boo xamee ne bàmmeel bu nekk fett na ba ña ca tegloo woon ñëpp kenn ku ci nekk jóg taxaw fëgg sa bopp yël bu poussière bi jublu penku aw yoonu bis penc bi bu keroogee dekki wiin yi dana wuute lool dana am ñu waaj ba jekk bu ñu dee góor takk seen or ak seen jama seen jigéen takk seen or ak seen jama bu ñu dee góor sol li gën a rafet war lu gën a rafet jëm ca bis ba jëm ca béréb ba waaye da gis ñoo xam ne dañuy am tubay rek ak suwetma gis ñoo xamne duñu am tubay silib lañuy sol ak suwetma am ñoom duñu am sax suwetma silib kesse lañuy sol am ñoo xamne xaw fa lay wëñ lañuy tak seen digg ba ba yéeg xar yi top ci ñoom di leen ree na ñi ndi way ban nekk aduna ku ci am ñaari mbubb sax wala ñett rek da nga naan man dama raflé ma ngi ne wa nga ne bay té nun bay yi nun yàlla suturaaloon nanu ndax saxal nanu karaw jox nu nuy lacc laccal yeen ak tay ji dañ leen di ree ndax dara taxu leen waaw kon jëw noonu la bone teg nit lu tiis lu ko naqari noonu la demee moo xam da nga ko koo wax wala da nga koo jëfe walla nga jëf ko ci alalam walla ci noo ko mën a defee rek li ci gën a bon lépp nag rëy li muy bon bon añaane ko yées añaan moom mooy jullit wala bindeef mu am dara yéene wokk ko xam ne soo sañoon nit ki ñàkk loolu wala soo sañoon mu dee loolu lépp nag xol bu ràpp moo ko yóbbi nit xol bu ràpp mën na yóbbi nit lu bari xol bu ràpp mooy ban xol bi nga xam ne duñ ko dundal dundaluñ ko ci fàttaliku yàlla tudd yàlla fàttaliku dee fàttaliku tiraayu bàmmeel fàttaliku yéexew ci sa kanam lépp fàttaliku suñu borom ni mu la jekkoo te la ni waxtu wu ko soobee mu naj la tabal la safara ak ayib yi nga am yëpp benn bu ci nekk yóbbu na la safara nga fàtte ko di xalaat ayib yi jàmbur ayib yi keneen di ko liñitu di ko gëstu rawatina nga di ko wax lami woowu doon wax loolu bu keregee ki nga ko doon wax lu bon li ñu jox ko paaka nga tàllal si lam yi mu dagg ko ñu saxalaat lam yi nga mu dikk si dagg ko ba baat yu toll ne la nga ko doon jëw jeex